parce que boo ci wax sax da ngay mujj ñàkk fayda waaw ndax yenn nit ñi tekk tekkuñu dara ci réew mi jaruñu tontu abu Diallo moom yow bàyyi yow moom jarul jarul jarul wax ak yow moom wax dëgg yàlla ndax nee nga xam ne dañ laa seexal xam ne laa dañ euh, lëndëmal euh, ma ñëw ci yenn benn benn mbir tey Sénégal dafa am événement bu am am sénégalais yu ñàkk seen bakkan boobu léegi nag je sais pas l'information si c'est avéré ou pas. bés bi set nga dégg ñu ne am na nit ku teer fii am na ñu ko teer fële bëgg naa gendarmerie bi ñu def ci enquête mu leer suñ suñu takk der yii xereñ nañ loolu nañ ci def enquête bu leer dañu dégg tey jii la police mu def une déclaration gannaaw émeute yi fi am ay sénégalais ñàkk ci seen bakken ñu taal ci ay bus ay entreprise yàqu ci police def déclaration depuis deux ans on nous parle de force occulte mais dama bëgg ngeen wax ñu ñan ñooy force occulte yi au Sénégal jàpp ngeen ay nit ne ñii dañu bokk ci force occulte yi ngir yàlla wax leen ñu ñan ñooy force occulte yi parce que aussi euh, man bëgg naa mënuma taxaw wedd sama police ak sama gendarmerie mais c'est difficile de les croire deux ans force spéciale mooy mère Amidia moom nee nañ mooy seen force spéciale force occulte terroriste yu bëgg a taal Sénégal wax nañ ko ngir yàlla wax leen ñu diw ak diw jàpp nañ leen ñoom ñooy force occulte yi ñun ñu mën a xam waaye euh, est-ce que vous pouvez nous parler de force occultes ba pare en oubliant les nervis waaw parce que man dama jaaxle ji Sénégal Jamil ah nee nañu Sénégal dafa am ay forces occultes nee nañu Sénégal dafa am ñu bëgg a taal Sénégal nee nañ jàpp nañ ci ñoo xamante ne tey jii mais du duñu nationalité sénégalaise ay ay ay ñàkk lañu ay yeneen yeneen nationalité lañu ah maanaam mën nga ramas sa benn Guinéen ci bu bokkoon ci bu doon jaay mango wala jaay sorance ne kii Guinéen la mais nañ ñu leeral ñan ñooy les forces occultes ngir yàlla parce que ñun lu ñu bëgg moo jàmb Sénégal lépp luy taal Sénégal bëgguñ ko. kon bu fekkee ne wax ngeen ne am na ay forces occultes leeral leen loolu waaye li gën a garaaw mooy Sénégal jaratul dara à l'international Sénégal jaratul dara à l'international suñu der bi dem nañu ba chaine française yi di ko ngëwti ngëwtee dem nañu ba parlementaire française ay député taxaw di réclamer justice pour le Sénégal dañu ne Walf Fadjri dafa doon wan ay image boo xamante ne mën na indi appel à l'insurrection dañu wan ay image yu doy waar te amul c'est pas vrai wal Fadjri wanu fi benn image waaye léegi nag yéen ay day yéen waaye kañ ngeen di dem tëj France 24 am wuy ma am leen am leen am leen fit woowu de dem leen ngeen tëj France 24 lii am Sénégal bugguñu kenn xam ko bugguñu kenn wane ko waaye yàllaa ay ci póotum buur dalay bàyyi ba nga fóot ba pare mu taw ci kawam. napp nañu chaîne yi fi nekk tey jii ba kenn ñemewu la wax ba accès à l'information bi nga xamante ne tey jii askan wi da ko war a am ñu war a jël information boobu jox ko askanu Sénégal ñemeetuñ koo wax chaîne yi fi nekk yëpp télé yi fi nekk yëpp suñu doom yi faatu c'est suñu doom yi faatu ay sénégalais. non c'est grave ce qui se passe ay sénégalais ay doomi réew mi ñoo ñàkk seen bakkan ay doomi réew mi ñoom lañu rey seen yëpp sëgg kenn waxu ko kenn wadewu ko France 24 ak yeneen chaîne ñoom seen bopp ñoo wane image yi wane gars yi ñoom seen kàddu du wax balle réelle ñoom ñoo ne ay balle réelle la ñu dóor askanu senegal France 24 ñoo def reportage boobu mu leer nañu ñu gis ay nervi nervi ñëpp xam nañ fi ñu fi mu jóge Sénégal gis nga tànk ñemewuñu waxante dëgg mbir mi du saafara te fa mu jëm du neex ay pick-up la gis ay pick-up plus de vingt pick-up ñu gis leen ñu aligné ñëw si pick-up yooyu xam ngeen ñi ko moom xam ngeen fi mu jóge ñu gis lu doy waar ay image yoo xamante ne numéro 9 boobu moom war nañu xam numéro 9 boobu mooy kan ba mën koo teg loxo mais li doy waar mooy image bi ñu gis force de l'ordre yi non force de ñu taxaw nervi yi taxaw ci wetu force de l'ordre yi mais la plupart des sénégalais gis ngeen image yooyu ay nervi di maltraiter askanu Sénégal ay nervi di dugg ci kër yi di dóor nit ñi ay nervi yore ngànnaay jëmale ko ci seen askan ana police ana gendarmerie ñooñu bu ñu bëggee force occulte mais ñu dem xool ñooñu c'est les vraies forces occultes du Sénégal mooy ces nervis là ces bandits là ces délinquants là qui tuent les Sénégalais kon mënuñu gëm ñu toog tey jii di wax lenn quand on parle su ma déggee ñenn ñi ay fumiste jéen il nous parle li ñuy wax mooy li ñuy wax ci affaire wu yàq-yàq yi bu xale yi yàq ma ne gis nga fi ñuy rey ba di ko fees kenn du fa jooyab góom fi ñu toll ñu gis ay sénégalais yu faatu yu ñu yu ñu rey ñu ñuy wax ay affaires yu ñu yàq ñu ñuy wax ay Auchan yu ñu toj ministère de l'intérieur nag gën na wax moom Antoine xawmal nañ ñu ko boy tuddee sax moom gën na wax waxam jooju mu wax ne nañ def enquête ban enquête lay am est-ce que sénégalais gëm ngeen tey jii tey li ñu wax ne ñoom dinañ def enquête ci lii ñoom est-ce que xam mais internet yéen laay waxal tontu leen ma dama bëgg gis seen réaction est-ce que yéen yéen ngi xaar enquête bu jóge ci état Sénégal ci lii nga xamante ne mooy ay bakkani rot la bu ñu demee ba Nations Unies. mbootaayu xeet boobu nga xamante ne mooy saytu àq ak yelleefu doomu aadama yi ci àdduna bi Nations Unies tey jii taxaw ne senegal hé lii faatu Sénégal da ngeen ciy def enquête par force ndax bëgg nañoo xam lan la mbirum nervi yii xew senegal ñoom Nations Unies nee na dafa dañu bëgg ay leeral Nations Unies ñoom ñoo génne bataaxal wax ci loolu kàddu yooyu ne dañu bëgg tey jii ñii faatu Sénégal ñu leeral ko. parce que tamit ay doomu Sénégal événement février mars yi ñaata ñoo faatu woon jéen quatorze personnes ñoo faatu woon ana enquête bi anna enquête bi on nous parle d'enquête il y jamais eu des enquête au Sénégal ci li ma xam parce que quatorze morts ñàkk seen bakkan di ay doomu réew mi amul kenn ku jug def amul benn enquête xamuñu autopsie bi nu ma mujjee jusqu'à présent am yeneen vingt deux morts yu tegu on nous parle de non nañ ci def enquête enquête dana leeral lépp kan moo war a leeral kan moo war a leeral ñu lay jiiñ ndëmb ngay seccoo yoolu yéelu liir moo fi am waaw comme nee nga nañ ci def enquête nañu xaar moom la ministère de l'intérieur wax nee na nañ ci def enquête dinañ leeral nanga mbir mi waaye leeral leen nervi yi leeral leen nervi Pape Abdoulaye Touré a été torturé par de nervis moom moo yëkkati kàddu yi bi ko Yolande seet see mu ne ko bi muy bi koy nervi di dóor bi ko nervi nervi ci boppam ñoo ko wax ne ñoom la la le ministre de la jeunesse bugguma sax jaar ci turam moom ci boppam ay nervi ay ay nervi am lañu Pape loolu la Pape Abdoulaye Touré wax. bu ñu demee ba ministre di recruter ay nervi Sénégal on est dans quel pays yaa yor police yaa yor gendarmerie yaa yor BIP yaa yor GIGN ba pare jël ay nervi Pape Abdoulaye Touré a été torturé am double fraction am double fracture am ay gaañu gaañu da doon ñibbi këram ñu dab ko def ko loolu ba pare def ko mandat de dépôt gis nga Sénégal. Euh, da ngay dem ba booy wax yow mi toog di def sa liggéey di taskatu xibaar sa mbokk yi dañ naan la ay waay looy waxati ay waay bàyyi li ngay wax ay waay danañ la jël si ay boo waxee ñu jàpp la on est dans quel ba léegi kenn mënatul wax kenn ñemeetul wax dëgg parce que yaa ngi naan su ma waxee léegi mën nañ maa jël si su ma waxee léegi mën nañ maa jàpp su ma waxee loo xamante ne sama xalaat la ci réew mi mën nañ maa tënk te kat qui aime bien châtie bien gis nga euh, meilleure façon wu dimbali nit ki président Macky Sall ñun dañ koy dimbali dimbali ko mooy wax ko dëgg dimbali ko mooy wax ko li am dimbali ko ngir fexe mu am un une sortie honorable dans ce pays président kenn waxul liggéeyoo ku ñu jox quarante quatre mille milliards kay war nga bëggoo liggéeyul kay ñu ñu lijjanti la am nga loo fi liggéey man je suis pas je dis pas que Macky liggéeyu fi waaye yàq na fi lu bëree bëri bëri te ñii koy conseil ñii ko wër naan ko jàppal diw nañ tëj diw nañ kii diw nañ làngam diw président ñooñu dañ lay yàqal ñu ngi lay yàqal sa sorti bi nga war a génn Sénégal Ablaye Wade génn Sénégal bu ko neexee duggaat ci réew mi dañu bëgg tey jii boo génnee Sénégal ëllëg nga duggaat ci réew mi ñu teeru la te loolu liñ lay njëkk a ñaan man li ma lay ñaan bokk mooy gis naa ñenn ñi naan feetum tabaski xarum tabaski ah, di wax ay piis yu ñu war a xotteeg tay bi ñuy lakkeeg ay mbaxana bu ñu war a jënd ma ne mais ñii xanaa dañu fàtte yaa y'a 34 morts dañu fàtte ne tey jii am na ay wéyjur am na ay njaboot yu sëngéem toog di jooy seen doom noppeeguñu dañu fàtte ne tey jii pënd bi wuréegul ndax li indi woon loolu ba léegi mi ngi fi kon nag nañu revenir à la raison li may ñaan président la république di ko ñaan justice Sénégal ba day justice am na ba léegi ci réew mi mooy li nga xamante ne mooy ñi ñàkk seen bakken doon xeex nañ def enquête bu leer nañu leeral ñii parce que aussi on n'a pas ce droit que ay nit di dee comme ay weñ ñu pare toogaat lekk suñu ceebu jën commandé suñu ataaya continuer comme si de dem nañ ba sénégalais yi dañoo miin dee sénégalais dañu dem ba dañu miin bakkan yu rot sénégalais yi dañu dem ba ñeme force de l'ordre yi bu njëkk ba moom mosaan dégg bip sa day dem boo mosaan dégg dig mais mais foo daan dégg dégg doo añ boo tibb ba nga tibb da nga ko fay bàyyi daw GIGN nag boo leen mosaan dégg non en cas de force majeure nga leen di dégg waaye bu ñu demee ba tey jii gis ngeen manifestation li fi am xale yi dem nañu ban ñi rek ragalatuñu lacrymogène ragalatuñu liif ragalatuñu takk der man tiital naa sama réew parce que bu ñu demee ba jeunesse bi tey jii quelques mètres séparés entre les manifestants et les forces de l'ordre mu leer na ne xale yi tey dem nañ ba màndi lacrymogène xeetu lacrymogène tiitalatu leen dem nañu ba force de l'ordre yi ni ñu daan wegee suñu force de l'ordre yi bu ñu mësaan taxaw manifestants yi dañuy taxaw ñu waxtaan ci njëkk am cër bu ñu leen jox ñu gis na tey jii force de yi xale yi joxatuñ leen cër te ñeme lañ leen lool te nag dafa am lu jaaduwul ci réew gis nga jën dafa am lu ma bëgg ñu leeral ko te ça me ça me tient au cœur jën euh, dama gis tey ji euh, ce qui se passe au Sénégal su l'événement des nervis mës naa ko wax benn waaju nekk APR ne ma mais Mass il faut arrêter waay am na jamonoy Senghor am na cent personnes yu dee man ne ko kasara yaay kasara yaay ku bon yow nga taxaw ay am nit ñu faatu di ay sénégalais ñu war a citer les responsabilités nga naan nga naan euh, mi ngi li li soogul am am amoon na ay jamono ñu rey cent personnes maanaam dafa am loo xamante ne tey ñun bu ñu toogee fii te tey man dafa am benn waay xam nga lu mu wax nee na génn nee na moom moom pick-up bu weex lay bañ a gis léegi nee na pick-up bu weex lay bañ a gis te du ñu am matricule bu ñu demee ba ay sénégalais comme nu ñu fay leen alal. ñu gàddu yat gàddu paaka gàddu jaasi mais pire pire yor des armes à gis image yi ñëpp gis nañu ko nag ñëpp gis nañu image yi ñu yor ay ay ay mais mais mais ay mais ay pistolet yor ay armes à feu lañ yor di ko dóor ci kanamu askan bi mu leer naññ waaye loolu jarul enquête. xam ngeen fan la ñan la ña ko def dem leen jàppi leen beneen bi nag gis nga am na mbër yoo xamante ne billaay perte nañ seen valeur askan wi gëmatuñ leen de.